on va enchaîner avec notre reportage société euh, tey ñu waxtaanee euh, jalousie permettre juste Bouba se préparer euh, jëm ci wàllu musique ak Bouxou Sen Kumpa ñëw rejoindre ñu ci plateau bi en attendant dañuy jàll ci reportage bi nga xamante ni chaque lundi on le fait jëm ci wàllu société bi Jussi. Mm-hmm. Pape Cheikh comme ni nga ko waxee reportage société mais boo xamante ne couple yi lay concerné tey li ñuy waxtaanee mooy jalousie maanaam firange ci biir relation soit mu nekk entre jëkkër ak jabar wala mu nekk entre ñaari nit yoo xamante ne. dañuy génn jalousie dañuy wax tout le temps que ku bëgg da ngay fiir mais am na ñu ma ne bu ëppee du baax ci couple ñu seetaan abi waa mbedd bi bu ñu paree waxtaanee ko ci plateau bi. c'est une ñu ngi ñu ngi jégalu euh, on va on va discuter un peu. permettre mhm. mun nañ euh, jël abi plateau bi sax en attendant fële di pare fiiraange ci couple est-ce que yéen fiir ngeen lan lay jëriñ Maymuna. Maymuna attends man moom fiiruma je pense sama mag nee na fiir naa mais je je je me qualifie pas comme nit ku. bañ ko ma yem xam nga sama yaay ko woyoon jooj ndeysaan du kii ne la ma joojo ñu ngi moo ko ah, woyoon ah fii wax yow waa waxtaan ci firange baaxul amul chance aussi ndax ku nekk euh, couple il faut mu am confiance ku nekk war nga mën a am sa confiance sa morom muy ko góor ki muy ko jigéen ki parce que moom mooy demal couple moom mooy tax couple yàgg mais xam nga tamit amul sens sa jëkkër génn foo nekkoon bu ñëwee foo nekkoon foo demoon genre yooyu noonu amul sens wala ku jigéen ki di dem nga koy topp yooyu noonu amul sens ku nekk war nga mën a am confiance sa morom parce que mooy doxal kooku vraiment di bañ a xool ay téléphone ak ay yu ñàkk fayda yooyu yooyu doxul. xam nga ñaari ñuy génn ñaari couple ñuy génn kii bëgg mën na fiir soit ko góor gi soit ko jigéen gi bu fekkee naxante amul ci ñaar ñiy sëy. man dama fiir man damaa fiir parce que métti woon trop ci man bi ma bëgg sax jabar da métti woon trop mais mënu ma ko jëlee seen kër defar bu mu baax benn vaurien taxaw fële di ko xowoo ci ruq beeg di ko jéem a defa yenn yoo xam ne nii te jigéen xelam matul duma toog sa wóor laa damay dem fu ne benn góor jege fële mën nu ko wax def loo xam ne nii maa day taal. ci benn côté dégg naa ñu naan euh, est-ce que du preuve mooy mën na nekk preuve ci benn côté mais ci beneen côté aussi bañ a maîtriser sa bopp la parce que yaakaar naa ni boo nekkee nit en étant être humain war nga mën a contrôler sa bopp ci yu bari am na yoo xam ne nag ça vient naturellement am na ñoo xam ne dañuy judd dañuy mais aussi euh, couple il faut ku ci nekk di comprendre sa rek ko defee jalousie bi sax danañ ko mën di am na ñoo xam ne nag c'est naturel ci ñoom am na ñoo xam ne moom mënuñu ko dindi dañ ko dañ leen ko mooñaale rien que ku gis sax sa sa jëkkër wala sax sa copain bu taxaw jigéen rek da ngay mel ni kuy yama gën xam. man damaa firmé sama firange dama am fu ma koy yem parce que du ma la woon yenn bëgg yi de trop bu yàggee sax man maay def parce que nag firange bu yàggee nag da ngay am benn kii de da ngay xaw a mel ni ko am ay dépression te du ko jaar man gisuma loolu man vraiment. Euh, mas naa pes sama copine ndax euh, jalousie genre mës naa ko def loolu rek mës naa ko def te mu nekk geste bu idiot bu ma def quoi après je me suis rendu compte que ne c'était pas la peine. parce que ko depuis loolu ma yar sa yaraat sama bopp ci lu bari ba ba ma dundaat même même événement bi may bon finalement dama mujjee maîtriser sama bopp je me suis di que ne ah, tey moom j'ai fait la chose qu'il fallait faire. xam bon ci diggante maag sama soxna mën naa mer ba du ma wax ak yow soo tegee sax mun naa koo gedd aw maa yow affaire su ma xëy sa dépense tegal naa ko sama bopp lool dem naa sama yoon boo reconnaître am nga loo ma def. ñu toog wax ma ak yow. pour conclure fii am na njëriñ wala amul njëriñ ak li tax. si mën na am njëriñ benn côté benn côté mun na bañ a am njëriñ parce que nit ki soo ko wóoloo jarul koy fiiree parce que jigéen lam yor fu mu jëm daal ak moom. boo ko fi yéexee sonn. c'est vrai que jalousie émotion la bu euh, doy ku nekk ak li nga ci li nga ci li nga ci xalaat donc les avis sont partagés surtout ak euh, ñi ñi ñu jot a taseel. Mm-hmm. donc Pape Cheikh ku ci nekk am nga ci sa avis am na ñu ne baax na am na ñu ne baaxul ñii ne nañ preuve d'amour la ñii ne nañ bu ëppee baaxul. Ah. que da lay sonnal kese donc comme waa medd bi wax nañ nag ñun tamit dañuy def suñu MT fii ci plateau bi ñu xool euh, ndax nit yi fiir nañ ak tamit lan la leen di jëriñ daal. ci yow lañ commencé woon commencé rek. man en fait man je trouve que. Euh... nit ki même bu boo boo amee sa jabar mu fiir yow yaa war a mun dalal xelam parce que mm-hmm. da ngay gis gu jigéen yu nekkee man dama fiir dama kii mais je me fekkee sa jëkkër dalal na sa xel xam nga mu xam yow li ngay bañ wala li nga xam ne moom mooy ñaaw sa xel mu mu mu dalal ko pour man amul problème maintenant man am na loo xam ne mënuma ko comprendre parce que am na góor yoo xam ne dañu am ay fiiraange yoo xam ne dama koy dégg mm-hmm. wala nga nga nga dem ba sa ah, jabar nga yaakaar waaw mais mais après je dama naan man loolu par exemple su ma gisee ku ko jëkkëram daf dama naan naa ko yow sa jëkkër ban genre jigéen la mhm, yaakaar na takk mhm, parce que tey mhm. boo demee ba takk sa jabar ba wóoluwoo ko mu génn nga yaakaar ne war na mën a dem di sekk ak beneen góor je me demande tamit bu fekkee yaa ngi xalaat loolu sa jabar lu tax nga koy takk am na yoo xamante nga koy génne <laughs> sentiment bu nekk ci nit la rek mais ni ko mm-hmm. Pape Cheikh waxee je pense que manqué weesuwul quand même <laughs> euh, nga nekk ak nit boo ko wóolul daal Pape Cheikh. bon bu la dal boo ci nekkul bu la bu la dalul moom. waaw mënoo xaw ma la c'est un sentiment naturel c'est un sentiment naturel mais nag aussi di nga nit ku nekk da ngay maîtriser aussi ses sentiments. Mhm. j'ai un minimum nit ki boo ko boo ko wóoluwul peut-être bàyyi ko mu dem. Mhm. doo gaañ sa bopp yow tam moom moom doo ko gaañ comme may mën a di c'est c'est vexant aussi. Mhm. nga nga nekk ak nit nga am ay préjugés ci moom waa di fouiller di euh, di di di yërndu. dafa ñaaw te nit ku quand même. Euh, responsable am na am na comportement yoo xam ne nag. ah di yërndoog yooyu di. di chercher di boo ko boole. parce que boo boo boo boo dalul rek da nga koy. parce que am na ñoo xam ne bés bés wala ko defee. loolu par mm. nañ ci yow. Mm. mais am na ñoo xam ne bëgguñu ku leen ku leen yërdu. bëgguñu ku leen def yenn bassesse yi yenn mm. yu sew yi xam ne. dafa rafetul ay toppaateeg wala di xool ak di. xencu ay chemise ak ay. arrêté day yàq àdduna. Ah, ah, ah, ñoom ñu def ni ñu ko neexee rek. mais day non c'est c'est ci ñaari ko def am na ñaari ko def am na góor da koy def jigéen da koy def ah, ah, ok ñëpp ah, man je vois ni c'est confiance mutuelle la mm. mais nag am na ñoo xamante ni euh, vraiment dafay nekk ci ñoom ba dem mujj nekk feebar xam noo ko mën a jàppee feebar mooy ñi ngay gis à chaque fois ci fee di kii de fiiraange moo tax mu def ci nit ki jaratul fouiller jaratul kii mm-hmm. nga bàyyi ko mais nag loolu nag du ñëpp la ci ñëpp ñoo ko mën ni ngay ni ngay mën a ànd seen seen xel je pense que ni pour relation moom à chaque fois xel bi tuuti quoi. Mm. li mu wax rek la parce que fiir souvent mooy indi li ñuy tuddee crime passionnel. li mm-hmm. ñuy dégg ci faits divers yow yow fiir fiir nga wala fiiroo bul tourné ci ah, plateau bi ci nga bokk non mais euh, cest dire euh, lekk ku ku bëgg fiir comme comme on dit mais ku nekk ak ni nga koy euh, ni nga koy ni nga koy génne kenn ku nekk tey ñàkkul bis boo xamante ni nga génne sa fiiraange mm-hmm. ci li nga bëgg da ngay fiir ci sa xarit fiir ci ki nga bëgganteel et tout ça ça arrive par exemple côté amitié quand je vois ku bees ñëw ci télé bi bi je di ko toppatoo je suis un peu jaloux ça arrive ah c'est un mélange de tristesse de de des fois mais loolu ci ki nga bëgg rek nit ki boo ko fonkul boo ko bëggul Euh, doo fiir doo doo fiir ci moom ah. bien sûr Félix. ci ñun Félix a ngi validé <laughs> ci ñun ñëpp la nekk je pense ah. <laughs> ci ñun ñëpp ah. ni koy voilà maintenant boo ci xeexul tamit bul juger ki ciy xeex. naan ko da ngaa manqué wala affaire yooyu c'est pour contrer un peu euh, DJ Bouba ku nekk ak ni ngay wane sa sa fiiraange. moi j'ai passé des nuits dehors ci buntu ay kër jàmbur j'ai j'ai fait des trucs de ce genre je te jure ah ndax ndax ndax jalousie. xeex pour pour repréciser sama pensée du du question de euh, du question de qui ñeneen ñeneen ni ku nekk c'est vrai euh, ni ngay exprimer sa sentiment parce que ñëpp yemuñu quoi. Mm-hmm. mais je dis tout le temps il faut nga am peut sens su nga xaw maîtriser un peu benn maîtrise quoi. jinne bi waxoon ne gola daal mënoo koo xam. boo ci wax waaw ñu ngi sa jikko moo tax ma tout le temps. il faut s'entourer de personnes il faut s'entourer de personnes yoo xam ne du ridicule loo nag. waaw moo tax tout le temps il faut s'entourer de gens boo xamante ne. <laughs> <laughs> parce xam nga tamit nit nit booy soo a dëkk moom wala nit booy soog a takk nit bu ñuy soog a marié wu tamit quand même il faut que nga wane nga nga marqué say empreinte jigéen yow xam nga ñun nu ñu mel jigéen doo ko may lépp ñun xam nga dañu xaw a tuuti boo mënee boo marqué say empreinte nag mm-hmm. waa ji napp la bu baax wala boppam mm-hmm. ah pap bu ngeen ñëwee ci biir nag nga xam et puis c'est normal pour man ci jigéen na ah, parce que góor moom xam nga ñun ñëpp dañu jàpp ni mm-hmm. euh, on est mu ñu gaamoo excessif bi rek maanaam bu ñuy dépassé sa sa raisonnement rek waaw mooy boo dépassé sa raisonnement man je trouve que fiir c'est normal dara nekku ci biir. ndax mat naa bàyyi ci biir daal ak couple moom moo ànd moom raisonnement. waaw ay ku lay woo ay ku lay woo lu tax mu lay woo heure bi mm-hmm. c'est ci couple lu tax sa jëkkër bi ko defee nit ñi war a tëddee dafa nangam dafa dafa possessif wala dafa nangam non ku lay woo heure lu tax mu woo la lu jëm oui ak ngeen c'est tout à fait normal quand mais ah, yooyu tamit respect la parce que je euh, vois que ne boo nekkee ci couple respect am na yenn respect bu nga xamante ne yéen nit ki waruñu la woo yenn kër yi a nappante début bi. relation bi bu commencé fa la base yu bëri di feeñee fa la jikko yu bëri di feeñee ci ngeen di mën a xam ku ci nekk mais nit ki boo ko tàmbalee yenn yi ngeen dem ba ci biir ngeen sëy yéen ñaan nga bëgg ko changer c'est pas possible mënul mmh. nekk mmh. par exemple comme lu ci mel ni ba ngeen doon génn mu neex ko ba bëgg dee ngeen takk bi ñëw mu bëgg ni dalay interdire téléphone loolu problème dafay am ah, forcément da naan lan moo tax mu bëgg ma ko interdire mmh. lu tax xanaa dafa am lu muy nekk na nga koy defee ku nekk na nga koy génne am na situation yoo xam ne boo ca tollee sa sago dootoo ànd teg moom mhm. leneen ngay xalaat sa xol bi dootul lii du lii mooy mooy nekk di di xalaat di raisonner rek ak dal fiir daal c'est tout à fait normal ku bëgg fiir man damaa fiir ba départ damaa fiir ba dox man damaa fiir ba bay naaw noonu dal mais dalal rek dalal rek tuuti dalal rek mais man néanmoins ki ma àndal ki may nekkal amul problème dalal rek may dalal di ma dalal di ma dalal. dalal rek moom xam na bu ma eh, meree. Eh, dalal te jox may wu na. sonn nañu sa man pour man euh, man ni ma jàppee fiiraange ba tey si si état bu xalaat bi la maanaam nga naan fu mu nekk lan lay def di am ay supposition maintenant bokkul ak ku la bëgg ñàkkal fay parce que tey mën nga bañ a fiir sa mhm. jëkkër wala sa jabar def yenn gestes yoo xam ne yow sa réaction da bañ ku la ñàkkal fayda da ngay da mhm. ngay da ngay remettre les pendules à l'heure loolu bokk man pour man fiir ba tey si tant mu ngi yem si état bu est-ce que lan lay def kan nga ñaaw njort sax laa ko jàppee mais bokkul ba tey ak yow tey nit nga war am preuve loolu nekkatul firang loolu règlement de compte la ak wane limites yi ak foo war a dépasser ak foo warta dépasser mhm. donc Pape je pense que mot bi benn la ku bëgg di nga fiir c'est très normal problème bi rek mooy euh, réaction yi ni ñu koy génnee parce que parfois ñu fekk la ci situation yoo xamante ni moom daf ngay doon carrément départ jaxase kër gi yëpp rajaxe lépp tas lépp mais boo paree nag ba nga xam ne yow li nga doon fiir nii dala neew fa gàcce gi la ci topp day grave donc ëpp man j'essaie de de truquer de. bañ a fiir dal bañ ko génnee de trop. parce que parfois trop en fait dafa dafa ëpp sax ba nga xamante ne parfois damay essayer di yedd sama bopp pour. pour di wàcc pour parce que da ngay gis benn affaire bu ndaw boo xam ne yow comprendre lii lan la rek nga exploser rajaxe foofu yëpp toj mm-hmm. kër gi yëpp. impulsif pare nag buñ paree ba jox la explication nga ànd ak sa gàcce. te mm-hmm. jaru ko donc te en plus nit ki bu fekkente ne da koo toog di ko oppressé di ko fat lii lan la looy def lu ci nekk nga bëgg ko lijjanti lu nekk nga bëgg ko xool ba ko yëndu da nga koy mujjee sonal voilà communication dara dégg dara waxtaan ci parti am na ñoo xam ne parti la ñuy jàmm mu leen ngay dee jarul ko wax ci mu jeex bi la non non da ngaa juum lii la lii la réponse day sax simple la communication est très importante ci couple voilà donc c'est c'est très ñoo xamante ne dem ba développer ay fiir maanaam di jël ay fen yu ndaw di foog c'est normal di ko dajale di ko dajale di ko dajale ba après nit ki même su kalmoon day jékki-jékki rek andil la benn benn réaction boo xamante ni nekkul woon ci moom. loolu am na mais Afi am na tam ñoo xamante ne ils se font des films dans xool benn affaire rek xoolal créer film réaliser ko produire ko lii la jouer ko génnee ko ne lii la te pour nga génnee ko seen bopp dafay metti waaw mais loolu nag li koy indi mooy nit ki à force mu lay fen di la def yu sew di gis fen yi da ngay dem même bu defee lu dul même defee loo xamante ni dara nekku ci sax forcément da ngay. sa xel dafay ah, ñaaw da euh, hmm. ku nekk ak ni nga ci ba pare marché à dal euh, di éviter euh, yu ñaaw ci nekk boo nekkee nit ngay dalal xelam parce que tam je pense que bu fekkee nit ki xool na xalaat ne yow waruloo def dara même bu dara amee dina ñëw waxtaan ci ak yow. ngeen trouver solution dalal xelu nit yi daal boo nekkee en couple. parce que ñëppay fiir ku bëgg nit di fiir boo faalewul nit rek nga ko dul fiire. voilà nit ki da ngay dalal xelam c'est important en tout cas c'est un sujet boo xamante ni xam naa ni wax ji dafay continuer vous nous regardez en direct ci Facebook dañoo fuuy léegi est-ce que xam ngeen ni bu ngeen demee ci euh, page bi dafay mel ni comme si ni ngeen ñuy gisee ni ci télé bi noonu ngeen koy seetaanee euh, ci euh, Facebook bi très intéressant comme euh, comme possibilité bu internet yi mën a am grâce ak service digital bu télévision Futur Média nii nii nii yéen a ngi ñuy yéen a ngi ñuy seetaan ci Facebook bi comme si yéen a ngi jàkkaarloo ak seen télé voilà donc mën nañu waxtaane léegi musique merci Bijou Euh, ci euh, sujet société bi ñuy def chaque lundi